Gakou euh, Khalifa Bougane ak xëy na ñeneen aussi ñu euh, am nañu ay problème problème bu ñu demee tournée ci biir euh, dëkk bi police les forces de sécurité dañ leen di xatal bon loolu nag atteinte grave la ci liberté ci liberté démocratique police warul tere candidat à une présidentielle mu def manifestation sous-préfet wala préfet wala gouverneur mën na tere fekk waru ko tere donc loolu mooy excès de pouvoir administratif donc démocratie warul am kumba am ak ndey ak kumba am ndey su fekkee mën na am euh, atteinte à l'ordre public mais ñu encadre leen boo teree nit ñi def euh, seen tournée nga bàyyi keneen kii di def tournée ki nga bàyyi mu def tournée kooku moo war a kooku moo nara jege